أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi woon ak yéen ba tey ci téere yàlla bi tabaraka wa taala tolloon ci suratul baqara di jël tey ñetti aaya aaya 139 ak aaya 140 ak aaya 141 ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala lim ñi ciy jàngal pour ñu jël ko comme dars mooy juróom benn mbir lañuy jàng ci ñetti aaya yi bi ci njëkk mooy fadilatu lixlaas wa huwa adamu liltifaati ila gayri llahi taala inda alqiyaami bilibadat ngëneelu kennal yàlla tabaraka wa taala ngëneelu wéetal yàlla sellal sellal li ngay def fadilatul ixlaas ngëneelu sellal sooy jaamu yàlla nga war a sellalal yàlla tabaraka wa taala li nga koy jaamu moom kese kese kese kese nga bañ a geestu keneen kudul yàlla sooy jaamu yàlla saa yoo jógee di jaamu yàlla bàyyil xel ne li ngay def yàlla moo ko moom bul ci boole keneen moo tax mu ne adamul iltifat ila gayrillahi taala bul geestu keneen keneen yoonam nekk ci moom yoonam nekk ci moomul dara maadaama yow yàllaa tax nga jóg mbir mi def ko ngir yàlla nga daal ci pare ñaareel mooy kullu mri'in yujza bi amalihi wa gayru mas'ulin an amali gayrihi illa ida kaana sababan fihi kullu mri'in yujza bi amalihi kenn ku nekk ci sa jëf bi nga jëf moom rek lan lay fay wa an laysa lil insaan illa ma saa doomu aadama li nga def rek rek rek loolu la yàlla di fay keneen lu mu def yow sa yoon nekk ci lu dul lu dul yow nga nekk sabab nit laaj la ci lislaam wala ci nangam lu bon nga ni ko lu baax la wala nit laaj la lu baax nga ni ko lu bon la ba mu bañ ko def su boobaa yow am nga responsabilité waaye bu fekkee ne yow yëgoo tinoo waa ji daal di dem rek dugg ci caaxaanam ci ay luxóor yow sa yoon nekk ci donte ne yow yaay baayam wala donte ne yow yaay yaayam wala donte ne sa papa la wala sa mbokk la maadaama yow bi muy def mbir mi yow yëgoo sa yoon nekk ci waaye bu fekkee dafa am autorisation ci yow def lu bon yow am nga ci responsabilité bàkkaar boobu yow am nga ci ñetteel bi mooy alyahud wa nasar wa nasraniya alyahudiya wa nasraniya bidaatun ibtadaa alyahud wa nasara loolu ñu naan nasaraan nasaraan wala ñu naan yahudiya judaïsme ngeen koy wax aw christianisme ñaari baat yooyu ngeen koy wax ci tubaab nee na ñaar yooyu ñoom ñoo ko sos mais amul sëslaay ci diine amul yàlla wax na ko ci quran ibtadauha ma katabnaha alayhim ñoom ñaar ñoo sos baat yooyu yahud yi ñoom ñoo sos baatu yahud nasaraan yi ñoo sos baatu nasaraan mais yàlla tuddeewu leen ko ñoo ko tuddee seen bopp comme tey rek ni mu amee ci jullit yi ay mbooloo kuréel kuréel ku nekk tuddee sa bopp tey xam nga kuréelu jullit yi ku nekk am nga tur yenn saa yi sax nga fekk ci kenn nga ni ko yow jullit nga mu ne déedéet déedéet du ma jullit dama nangam laa ndax day fàtte day fàtte waaw yow foo bokk tey soo yoroon rajo dugg ci kër yi nga ñëw ni ci benn kër ne asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam nga ni yow foo bokk lan nga ooyee mu ne la man jullit laa dama lay wax beneen tur loolu moo dal yahudi ak nasaraani mooy sosal seen bopp ay tur yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala wàcce wu ci ñoom ñoo ko sosal seen bopp ñeenteel mooy tafaawutu zulm bi xasbil asaar al mutarattabi alayhi mana tooñ mooy yàlla tabaraka wa taala ay darajaam dafa kawente dafa sutante tafawutu zulm bi hasbi asar al murattabati alayhi loolu ñu naan tooñ ay darajaam dafa ëppante soo tooñee yàlla nuróowul nga tooñ mbindeef soo tooñee mbindeef nuróowul nga tooñ euh, nit nuróowul nga tooñ rab dafa dafa kawante dafa sotante ñeenteel mooy xurmatu kitmaanu shahada la siyama shahadatun min allahi taala dafa araam nit mu nëbb seede ñu jël la ne la yow seede nga témoin nga nga xam dëgg gi ni mu leeree nga dem daal di noppi ngir ay intérêt léeg-léeg olof olof yi lépp ñu ne dëgg bu réeree ci pénc ñu koy wër suba ba ngoon feeñu ñu ne kilifaa fa juum est-ce que dégg ngeen wax bi déggu leen ko de yéen du ngeen ay olof dëgg bu réeree ci pénc mi ci dëkk bi ñuy wër dëgg bi suba ba ngoon gisuñu ko kilifa moo fa juum te kenn ñemewul wax ne kilifa moo juum moo tax dëgg bi kenn du ko gis loolu mooy li yàlla di wax tabaraka wa taala mooy nëbb dëgg li yahud ak nasaraan def jàng ci alquran wala jàng ci seeni téere injil ak tawraat yàlla wax muhammad nu mu mel ñu daal dem dindi ko effacé ko wala ñu dem traduire ko neneen lu mu leen neexee ngir bañ doomu aadama yi gëm yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam juróomeel mooy adamul itikaali ala hasabil aba wal ajdad wa wujubil iqbali ala nafs li tazkiyatiha wa tathiriha bil imani salih wal amali salih bil imani sahih wal amali salih bokk na ci li ñuy jàng ci aaya yi mooy ñàkk a bañ a di tiitaroo sunuy ndey wala sunuy baay ci tey ci réew mi am ñoo xam duñu jaamu yàlla xam nga lu tax parce que seen papa Jóob la sant wala Faal la sant wala Saar la sant mbaa Caam la sant mbaa Jaxumpa la sant parce que man sama papa nangam la rek sama papa kilifa la wala sama yaay wala sama rek wala ñun ñu ngi bokk ci këru sàngam rek nga koy tiitaroo yow doo doo doo jaamu yàlla de sa maam boobu wala sa papa boobu moom da doon jaamu yàlla ci loolu lañ ko xam yow nga ñëw bañ a jaamu yàlla nekk ci yeneen business ba pare nit ñi di la topp moo ko moo xew tey ci àdduna bi te loolu da ngeen jàng ne dañ koo dàq ci diine wala aj daat nga gis kuy tiitaroo ay maamam waaw ñoom ñoom diw diw mooy seen maam maadaama diw mooy seen maam rek lu leen neex def waaw li war mooy wal wujubi iqbali ala nafs xam nga li war mooy yow sa mbir bopp wala arab yi dañ naan laysal fata man yaqulu kaana abi innal fata man yaqulu ha ana za ñu ne ñu ne góor góor dëgg ñu ne man sama papa non man sama papa milliardaire la non man sama papa borom xaalis la non man sama papa dafa am doole non man déedéet góor dëgg du wax sama papa góor dëgg da naan man man mais di tiitaroo sa pap wala di tiitaroo sa maam sa maam dafa jàngoon yow jàngoo waroo fi jiite xamoo dara Sénégal nag loolu amul papaam a fi nekkoon papaam dee na ñëwal maama fi nekkoon maamam dee na ñëwal même boo xamul dara te xam ngeen loolu nit ñi ci diine bi lañ ko nangu mais nanguñ ko ci wàllu àdduna docteur kii papaam docteur la moom mécanicien la doo feebar mukk dem dem ci moom ne ko comme sa papa docteur la woon bismillah opéré ma wala wala sa oto bu yàqoo ah nga ni waaw sa oto bu yàqoo kan kee gis fi oto bu yàqu mu yóbbu ko principal ah abadan parce que xam nga ne principal ñoo ñoo fa nekk ñuy faj ay nit maanaam ñun ci àdduna li ñu nangu nag suñu diine dañuy nangu suñu diine loo xam nanguwuñ ko suñu àdduna loolu moo dul dëgg moo tax aaya yi la ñuy jël tey mu nekk juróom benn mbir li war mooy nit al iqbalu ala nafs li tazkiyatiha nga fexe setal sa bakkan laabal sa bopp yàlla wax na ci quran qad aflaha man zakkaha ku setal sa bakkan texe nga wa qad xaaba man dassaha ku fexe ba sa bakkan tilim yow alku nga wa tathiriha nga laabal bakkan bi lan moo koy setal lan moo koy laabal mooy bil imaani sahih mooy ngëm gu wér nga bokk na tey ñun waa réew mi problème bi ñu am mooy ngëm ngëm gu wérul lañ am ngëm gu wérul day gis nit ku gëm mais li mu gëm wérul te ngëm gi dafa war a wér ngëm su wérul rek jaamu yàlla du wér loolu moo tax chaque jour ñu war a xool li ñu gëm ndax wér na wala wérul al imaanu saxiix wal amalu saalix ak jëf ju baax loolu mbokk yi juróom-benni tomb yi moom la ñuy jàng ci ñetti aaya yi nga xam ne moom moo nekk sunu kanam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل أما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألن أما كانوا يعملون برم سبحانه وتعالى من قل وخل يوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نغلا جاي nga wax ak ñom nga ni len atuhajjuna fillah ndax da ngeen di discuter ak man ci yàlla ab yonent bu yàlla tànn yónni ko ngeen di weranteeg moom ci mbiru yàlla tabaraka wa taala mu ne yaamuru llahu taala rasulahu yàllaa ngi digal yonentam bi an yunkira ala ahlil kitaab yàlla na weddi ñooñu téere te mooy yahudi ak nasaraani jidaalahum seen werante yi ñuy werante fillahi ci yàlla taala bu kawe bi waaw isdaaw annahum awla billah ndax ñoom dañu ne ñoom ñoo gën a yey yàlla ci jullit yi ak yonent bi waaw ñu ne ñoom ñoom ñoo moom yàlla waaw ñoo moom yàlla daanaka tey mën nga wax ne melokaanu yahudi ak nasaraan yi la lenn ci ay jullit yor am na jullit yoo xam dañoo jàpp ñoom ñoo moom yàlla lu leen neex def lu leen neex def bu leen neexee duñ julli bu leen neexee duñ woor bu leen neexee duñ aji màkk bu leen neexee ñu yàlla ne takk leen ñeenti jabar ñu débordé pour 70 lu leen neex ñu def parce que ñoom boo waxee ñu ne moo ko sañ moo ko ñeme yaa moo ko ñeme moo ko sañ dafa am ci islam islam amul lu kenn di sañ amul lu kenn di ñeme xataa yonent bi saa salaam amul ñemewul yàlla ne ko Muhammad dafa lii mu def leneen jàng ngeen ko ci alquran yàlla mu ne Muhammad walaw taqawwala alayna ba'da al aqawil lan la wax la axasna minhu la axasna minhu xanaa jàngu leen ay walaw taqawala alayna bada al aqawil lu ci tegu lu ci tegu la axasna minhu billamin summa laqatana minhu alwatin yàlla ne Muhammad su ma ko santoon dara mu bañ dinaa ko téye ak sama main gauche sama main droite ah dinaa ko téye ak sama main droite dinaa dagg put bi muhammad la yàlla di wax la qataana minhu lwatin muhammad kon keneen nag kon keneen su yàlla ne muhammad su ma ko santoon dara mu bañ dinaa ko téye ba mu dëgër ma dagg put bi muhammad la ñuy waxal de ah walaw taqawala alayna baada lenn rek la yàlla wax lenn lu xul mu changé lépp de mais lenn rek yàlla ne ko defal lii mu dem def leneen wala mu ne ko waxal lii mu wax leneen kon nga xam ne yàlla tabaraka wa taala ñi koy tooñ wala yàlla di santaane ñuy def leneen ba pare jàpp ne rëcc nañ dañoo xamul rek borom bi tabaraka wa taala nee na yonent bi arrêteel ak ñoom dagga sante yi ñuy def ak yow li ñuy wax ne ñoom ñoo la gën a yey ci yàlla yaag julit ñi yenn saa yi sax wa qaalu nahnu abnaullah dem nañ sax ba ne ñoom ñooy ay doomu yàlla wa qaalatil yahud nahnu abnaullah yahudi nee nañ ñoom yàlla mooy seen baay yàlla leen jur subhanallah wa ahibaahu yenn saa yi ñu ne ñoom ay soppe yàlla lañ fa allama allahu rasulahu kayfa yaruddu alayhim munkiran alayhim dawaahum albatila yàlla tabaraka wa taala sant yonent bi xamal ko naka la leen di tontee bu ñu waxee wax yii naka la leen di weddee ci woote yi ñuy woote nga xam ne woote caaxaan la naan ñoom ñooy soppe yàlla wala yàlla mooy seen baay wala ñoom ñoom ñoo yayoo ibrahim ñoom ñoo yayoo ishaqa ñoom ñoo yayoo yaqub ñoom ñoo yayoo ismail ñoom ñoo yayoo muusa di wootewu naan ñoom ñoo yayoo nit ñu baax ñi te ñoom baaxuñu di tiitaroo ñu baax ñi te yow baaxoo loolu moo ñu dal tey di tiitaroo ñu baax te baaxoo waaw di tiitaroo ku baax subhanahu wa taala sunu borom mu ne qul waxal atuxaajunana atujaadilunana fi diinihi wal imaanu bihi ndax da ngeen di discuter ak ñun ci seen diine ak seen ngëm ak yonent gi leen yàlla yónni istifham bi mu ne lil inkaar la atujaadilunana fi diinihi ndax da ngeen di discuter ak man ci diine Ibrahim ci ngëmu Ibrahim ak ci yonent gi mu nekk yonent man yonent yàlla Muhammad man may yonent moom muy yonent yàlla tabaraka wa taala yónni ma yónni ko yéen ngeen di ñëw di werante ak man parce que loolu yenu na maana waxe yenuwul maana ab yonent kenn warul werante ak moom moo tax mu ne leen subhanahu wa taala wa huwa rabbuna yàlla moom mooy sunu borom wa rabbukum yàlla mooy seen borom yàlla mooy boroomu ñëpp baatu rabb li muy tekki mooy alladi rabba ibadahu bi ni'matihi wa fadlihi yàlla subhanahu wa taala moo yar jaama bi ci ay ngëneelam ci ay xéewalam jàngeen baatu rabb ci qul auzu bi rabbil naas jàngeen ko ci qul auzu bi rabbil falaq baatu rabb mooy ki yar ki yar nag looy xalaat ci moom suñ nee diw moo la yar mooy ça veut dire que moo lay jox nga lekk moo lay jox nga naan moo lay faj moo lay moo lay moo lay kooku mooy yàlla ci ñun rabbuna yàlla mooy suñu borom da ngay jàng ci alquran ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin yàlla mooy borom bindeef yëpp loolu ma wax sànq lekk naan dund lépp lu ci aju kan moo koy defal nit allahu subhanahu wa taala moo koy defal doomu aadama wala mu ne wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi rizquha amul ku mu mën a doon yàlla moo koy moo koy dundal amul kenn te ku nekk rek yàlla préparel na la ni ngay dundee ku nekk ku mu mën doon wala nit bi mu nekkee liir amul bëñ wala mës ngeen gis liir bu juddoo am bëñ liir bu juddoo day am bëñ mënu lekk yàpp munu lekk ceeb munu lekk mburu lan la ko yàlla préparé pour muy lekk nga muy meew meew day mucc rek meew ñëw mu wan bu demee ba ci àgg ba nga xam ne meew mënatu ko te bëñ yi génn ah mu commencé xàmp di dagg waaw di yëy waaw di wan gis nga noonu noonu ci rëpp rabu àll yëpp yëpp yëpp yëpp borom bi subhanahu wa taala préparé lu ñuy dundee kooku mooy yàlla subhanahu wa taala kooku mooy sunu borom lépp kenn ku nekk ni ngay dundee préparé na la ko ku nekk rek li ngay dundee préparé na la mu ne waxuwa moom yàlla rabbul alamin rabbuna mooy sunu borom wa rabbukum mooy yéen seen borom yéen ñi nga xam ne yéen a ngi discuter ak man yéen yahud ak nasaraan waaye lan mooy sunu différence walana amaluna walakum amalukum gis ngeen baat bi ñaari baat yi foog ñu koy bàyyi xel walana amaluna walakum amalukum kenn ku nekk sa jëf moo lay jëriñ walana amaluna man sama jëf moo may jëriñ walakum amalukum yéen seen jëf moo leen di jëriñ kenn ku nekk sa jëf jullit ay jëfam dong moo koy jëriñ mënoo jëriñu ci jëfu keneen sëriñ bi nee na alxayru laa yanfaw illa li failihi wa charru laa yadurru illa li failihi lu baax du jëriñ lu dul ki ko def gis ngeen nekk ci lu baax te doo ko def xam ngeen nu mel nekk ci lu baax te doo ko def xam ngeen nu mel mi ngi mel ne boolub ceeb bu ñu teg bu tàng jër amaana sax ceeb bi nekk ceebub ginaar ñu def ci liñ ci war a def ñu teg ko sa kanam ñépp di tibb di sex yow ngay tibb di teg ci sa doq lan ngay yëg est-ce que kii tibb di teg ci doxam dina yëg ne neex na lu mu yëg déedéet tàngaay bi rek lay yëg waaye du yëg neexaay bi kii tibb di def ci gémmiñ nag di sàqami di wann muy dem kooku lu muy yëg kooku neexaay bi lay yëg loolu mooy nga nekk ci lu baax te doo ko def doo yëg mukk doo ci jëriñu mukk kii tibb di teg ci doxam du jëriñu au contraire day salteel boppam moo tax kenn ku nekk nga war a xool say jëf sa jëf yow kenn lay jëriñ yàlla wax na ci alquran wa an laysa lil insaani illa ma saa doomu aadama lu mu def rek rek rek la ko yàlla di fay yàlla wax na ci alquran kullu imri'in bima kasabat rahina kenn ku nekk li nga def loolu nga tayle sa bopp loolu nga garanti sa bopp moo tax gis ngeen aaya bi mu ne wala naa amaluna ñun ñeel nañu sunuy jëf ñun jullit ñi li ñu jëf ñun la concerné yéen yéeféer yi wala kum amalukum seen jëf yéen yéen la concerné kenn ku nekk say jëf rek papa papa kenn du ko jugé ci jëf doomam gis ngeen yonent yàlla nuux kenn jugé wu ko ci jëfi doomam doomi nuux tamit kenn jugé ko ci lu baaxu nuux te pourtant kii yonant la moom moo jur doom ji loolu loo ciy dégg mooy ku nekk ak sa jëf jabaru nuux jëkkëram lan la yonent ah mais kenn àttewul jabar ji ci lu baaxu jëkkër ji jabar ji yàlla daf ko àtte ci lu bon lu mu def jëkkër ji yàlla àtte ko ci lu baax lu mu def ñu bàyyi boobu misaal ñu jël beneen misaal ci firawna firawna wa ku baax la wala ku bon la ah ku bon la jabaram mi ngi aljanna kon jabaram yàlla ci jëfam la ko àtte firawna yàlla àtte ko ci jëfam yóbbu ko safara jabar ji nekk ku baax yàlla àtte ko ci lu mbaaxam moomu yóbbu ko aljanna kon kenn ku nekk li nga def sa papa buy dem jàkk di julli ji yow ngay dem estaat bu ngeen deewee du ngeen bokk kenn du jël sa tiyaaba papa jox la kenn du jël tamit sa estaat bee nga doon dem di ko jox sa papa wala wala na amaluna wala kum amalukum waaye wa nahnu lahu muxlisuun ñun ñooy ñi nga xam ne dañuy sellal sunu jëf yi ñuy jëf baatu sellal baatu ixlaas lan mooy lan muxlisuun al ibadata lahu sellalal jaamu gi ngir yàlla kese laa nushrik gayruhu fiihi duñu bokkaale keneen ku dul yàlla ci jëf yiñ koy jëfal wa antum nag yéen yahud ak nasaraan mushrikuuna ay bokkaale kan ngeen loolu moo tax ab jullit dafa war a moytu bokkaale parce que bokkaale day yàq jëf bi ñu laajee boroom xam-xam yi lan mooy ixlaas mu ne taxliisul ibaada min al iltifaati ila gayrillahi taala sellalal jaamu gi ba doo geestu keneen ku dul yàlla bi ñu laajee junayd sëriñ bu tudd junayd ñu laaj ko lan mooy ixlaas allahu akbar baat yi bëgg naa kenn ku nekk ñun ku toog ci jàkk ji mu bàyyi xel ci lii junay di di tekki ne moom mooy ixlaas nee na al ixlaasu sirrun bayna al abdi wa bayna allah taala mu ne sellal benn jëf la boo xam ne secret la bu dox diggante jaam ak yàlla benn mbir la bu nekk diggante jaam ak yàlla laa yaalamuhu malakun mu ne malaaka xamu ko fa yaktubuhu ba mu koy bind malaaka yi mënuñu koo bind ndax xamuñu ko sa diggante la ak yàlla wala seytaanun fa yufsiduhu seytaane xamu ko ba koy yàq sellal malaaka xamu ko ba la koy bindal ci sa tiyaaba seytaane xamu ko ba koy yàq mu ne wala xawan fa yamiilu fa yamiilu fa fa yamlihi mu ne même bànneexu bakkan bànneexu bakkan mënul jéng jëm ci sellal kon sellal mbir mu sew la bu nekk diggante jaam ak boroomam malaaka mënu ko bind parce que xamu ko seytaane mënu ko yàq bànneexu bakkan mënul jéng jëm ci moo tax waa ji ba mu ñëwee ne day dugg àjjana nekkoon jihaad kat rey lu bare bari ci ay yéefir taxaw ci kanam yàlla yàlla ne malaaka yóbbu leen ko safara mu commencé di wax li mu doon def man rey naa nangam def naa nangam def naa nangam lan la ko yonent ci hadis bi lan la yonent bi wax waa ji lan la yàlla wax waa ji kazabta da ngay fen da nga doon xeex pour ñu ne jàmbaar nga xeexoo woon pour ñu ne yow ngir yàlla xeexoo woon ngir yàlla da ngaa bëggoon nit ñi ne jàmbaar nga gis ngeen loolu loolu kan moo ko xam pourtant malaaka yi bi ñuy bind lan lañ bindal waa ji jihaad ba mu fees del waaye yàlla mu ne waa ji day da ngay fen da ngaa bëggoon ñu ne jàmbaar nga xeexoo woon ngir man moo tax sellal lu sew la su ngeen jàngee xadis bi dafa ne al muxlisuuna ala xatarin azim ñi sellal ñi ngi ci danger ba muy wax ñëpp alku nañ ba mu des ñi am xam-xam mu nañ am xam-xam alku nañ ba mu des ñiy jëfe mu ne ñiy jëfe alku nañ ba mu des ñiy sellal mu ne ñiy sellal ñu ngi ci danger wal muxlisuuna ala xatarin azim beneen bi mooy keneen ki da doon joxe alalam bi mu taxawee ci kanam yàlla yàlla mu ne na dem safara mu ne yàlla man yàlla mu ne ko dangaa bëggoon ñu ne dangaa baax waaye joxe woon ngir man dangaa bëggoon dangaa baax keneen ki doon jàng alxuraan ñu ne ko safara yàlla mu ne bi mu ne man nangam nangam yàlla mu ne ko dangaa bëggoon ñu ne sa baat neex na waaw dangaa bëggoon ñu ne sa baat bi dafa neex am na ci koo xam ne da doon jël yaayam sang ko sang ko jox ko mu lekk jox ko mu naan boot ko bëgg yaay ji yaay ji def dara bu mu deewee ruu bi timsaal ci kanam yàlla yàlla mu ne malaaka yi yóbbu leen ko safara malaaka yi tiit ne yàlla kii maa raayna sayiatan fi amaalihi gisuñu lu bon ci ay jëfam naka lañ koy yóbbee safara lan la def yàlla mu ne man maa xam xëy kii amoon na benn yaay da doon liggéeyal yaay ji waaye chaque jour bu liggéeyalee yaay ji ba pare danaan allah xol bi day wax allahumma allahumma xuzha wa arixni minha yàlla reyal meer bi ba mu dee ba ma noppalu loolu la xol bi di wax yàlla na meer bi dee ba ma noppalu yàlla mu ne deful woon mu ngir man lan la doon def ngir ngir mu dee mu noppalu loolu moo tax mu ne al ixlaas imam junayd mu ne al ixlaas sirrun bayna al abdi wa bayna allah sellal secret la bu dox diggante jaam ak yàlla sir sir mooy lu nëbbatu la sa diggante ak yàlla rek yow rek sa diggante ak yàlla loolu moo tax alquran nañu rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kaana lil awabina ghafura yàlla rek moo xam li ci sa bopp yàlla rek moo xam li ci sa xol yaa ngi am jëkkër wala yaa ngi am jabar yaa ngi am papa yaa ngi am yaay yaa ngi am doom ngeen bokk kër xamoo ndax moom yéeféer la xamoo ci dara yàlla rek moo xam ne kii jullit la wala yéeféer la sirrun bayna al abdi wa bayna allahi taala laa yaalamuhu malakun fa yaktubuhu wala shaytaanun fa yafsiduhu wala hawan fa yamiilihi malaaka xamu ko ba koy bind seytaane xamu ko ba koy yàq bànneexu bakkan mënul jéng jëm ci yàlla rek moo ko xam yàgg yàlla kon nañu sellal yéene yi loolu mooy ixlaas moo tax aaya bi nañu wa nahnu lahu muxlisuun ñun de ñun ñooy ñi nga xam ne dañuy sellalal yàlla sunuy jëf mu ne am taquluuna wala yéen da ngeen di wax yéen yahud ak nasaraan inna ibrahima naka ibrahim wa ismail ak ismail wa isxaq ak isxaq ñaar ñooñu doomu ñaar ñooñu doomu doomu ibrahima lañ kan ak kan ismail ak ishaq ismail mooy taaw bi moom moo juddoo moom moo dundoon màkk ñaareel bi moom mooy ishaq ishaq moom moo juddoo woon jérusalem moo foofu la dund wa yaqub yaqub mooy doomu ishaq ak yaqub wal asbaati ak seeni sët ndax yéen da ngeen di wax ne ñooñu kaanu nekkoon nañ huudan ay yahud yéen da ngeen bëgg a wax loolu da ngeen bëgg a wax ne ibrahim ak ismail ak ishaq ak yaqub ah ak ay sëtum sëtu ibrahim da ngeen bëgg a wax ñii ñëpp ay yahud lañu woon kaanu huudan aw nasaara ay yahud lañu woon wala ay nasaraan lañu woon loolu ngeen bëgg a seede moo tax yàlla subhanahu wa taala mu ne yonent bi loolu ñu bëgg a samp dajj ko yow yonent bi dajj ko loolu ñu bëgg a wootewu ne ibrahim yahud la woon wala nasaraan la na nga ko dindi ba mu set alquran weddi ko maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasaraaniyan yàlla mu ne ibrahima du woon yahud ibrahima du nasaraan bañ ci bëggee sax yàlla mu ne leen waaw qul waxal yow muhammad ñoom a antum aalamu amilla ñoom ñoo xam wala yàllaa xam kan moo xam yàlla moo xam wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla moo xam yéen xamu leen qul waxal yow muhammad a antum aalamu amillah waaw yéen yéen a xam wala yàlla moo xam istifham bi li taqrib wa tawbiix istifham bi loolu la yéen yéen a xam wala yàlla moo xam lan mooy tont tont mooy yàlla rek rek rek subhanahu wa taala mooy aji xam ji waaw fa in qaalu nahnu aalam kafaru ñoom bis buñ ne ñoom ñoo gën a xam yàlla ñu nekk ay yéeféer wa in qaalu allahu aalam inqata'u li anna allaha taala axbara annahum kaanu abadan maa kaanu abadan yahudan wala nasara yàlla laaj bi mu leen laaj yéen yéen a xam wala yàllaay xam ñi laaj bi ñaari tontu moo ci nekk yu yàlla di dajjee seen wax ji ñu ne ibrahima yahud la woon ak ay njabootam yàlla laaj na leen ne leen maa xam wala yéen yéen a xam lan mooy tontu benn ñu ne yàllaa xam kon bu yàlla xamee yàlla moo dëgg yàlla neen ibrahima du yahud ak njabootam ñoom buñ nee ñoom ñoo xam kon ay yéeféer la ñuy nekk mooy dañuy weddi yàlla wala yàlla laaj leen loolu léegi nag lan mooy tontu bi mooy yàlla moo xam subhanahu wa taala moo tax borom bi mu ne waman azlamu amul kenn koo xam ne moo dàq tooñ mim man ci waa ji nga xam ne katama dafa nëbb sahaadatan seede waman azlamu ana kan moo dàq tooñ xam ngeen luy tontu bi mooy kenn dàqu la tooñ mim man ki nga xam ne katama dafa nëbb sahaadatan seede dëgg mu dem nëbb ko teg ci ay loxoom teg ci tànkam seede boo xam ne wala dëgg goo xam ne indahu mi ngi ci moom xam na ko min allahi te mu bàyyi koo ci yàlla dëgg goo xam ne ci yàlla la bàyyee koo nga jàng ko xam ko mu nekk dëgg nga dem teg ci sa tànk lii yàlla daf ko xase yahudi ak nasaraani waaye ci jullit yi la bari tey waaye yàlla xase na ko yahudi ak nasaraani ñaata tey ci ay këru diine ci ay xalifa diine yu nëbb dëgg teg ci seen tànk bañ a leeralal taalibe yi dëgg ñaata ñaata kenn xamul lu mu toll lu tax parce que boo leen waxee dëgg gi dañ lay mere dootuñu indi xaalis bi dootuñu indi ceeb yi dootuñu bay tool yi dootuñu dootuñu dootuñu dootuñu dootuñu moo tax léegi nga daal di nëbb dëgg bi ngir ñoom ñu nekk ci dalaal rek nekk ci cànkute rek nga bàyyi leen noonu moo tax Sénégal loo gis kenn mënul jaamu yàlla diine bi lépp ci la bokk doo dégg mukk benn sëriñ bul bayaan ba wax dëgg yàlla bi tabaraka wa taala moom ngay incha allah seen mbir baax na àdduna baax na àllaaxira incha allah ku fi teew yàlla dindil na la sa bakkaar yéen ñëpp dem ngeen aljanna gars yi di yuux loolu rek ngay dégg yu neex rek la ñu leen di wax waaw yenn saa sa nga ne ñun ku ñu gis lundi ak jeudi dim nga aljanna am na benn sëriñ boo xam ne mu ne waaw su ngeen gisee nit ñi taalibe yi bu ñu ñëwee fii mbirum àdduna rek lañ ñuy wax mbirum àdduna rek amaa mbirum alaxira diw mu ngi fa réglé na ko ba pare diw mu ngi foofu réglé na alaxira ba pare waaw moo tax ñun buñ ñëwee fii duñ ñu wax mbirum àdduna mbirum mbirum alaxira mbirum àdduna rek lañ ñuy wax mbirum àdduna rek ndax mbirum alaxira moom diw mu ngi foofu réglé na ko ba pare gis nga moo tax yàlla mu ne waman azlamu ana kan moo dàq tooñ tontu bi mooy kenn dàquta tooñ mi man ki nga xam ne katama dafa nëbb shahaadatan seede dëgg indahu dëgg boo xam ne mi ngi ci moom xam na ko min allahi dëgg gu bàyyeekoo ci yàlla mu dem nëbb ko bañ koo leeral nëbb dëgg nëbb ko teg ci tànk waaw yaa nga déedéet déedéet ndeysaan benn sëriñ bu tudd yunus dafa doon firi alquran di ko leeralal nit ñi sëriñam bi ko jàngal woo ko bàyyi li ngay def bul firi aaya yi bul ko firi mu ne ko sëriñ buñ ko firiwul nit ñi duñu xam mu ne boo ko firee dañuy yeewu bàyyi noonu rek bu leen yee man bëgguma koo dégg bëggumaa dégg nga koy firi mu ne ko billaahi dootoo ko déggati sëriñ bi daal di tëx ba sëriñ bi dee déggatul alxuraan ñu koy firi ne ko bëgguma koo dégg mu ne ko bëggoo dégg ñuy firi alxuraan mu ne ko wallaahi bëgguma koo dégg mu ne ko wallaahi dootoo ko dégg sëriñ bi tëx ba dee déggatul ñuy firi alxuraan wala loolu waaw ah looy dégg fii ci sëñ ñuy wax Sénégal alxuraan kenn waru ko firi ndax ñu koy firi dañoo sob lu yàlla wax nga naan da nga koy firi su ngeen fekkee ñu koy firi daw leen war leen ci fas dawal ko ba fas bi dee mais bu leen ko déglu bu ñu firiwul alxuraan nit ñi alku alxuraan moo ñuy wax fu ñuy teg suñu tànk alxuraan moo ñuy leeral la suñu dund yàlla moo ko indi pour ñu dund ko constitution la constitution boo xam ne yoo xamoo lu muy tekki loi yi xamoo ko da ngay jalgati rek wala gis nga jullit ñi dañuy jalgati rek wax naa ko démb juma gis ngeen naar bi lu mu ñu wax barki démb ah naar bi dañ ko ne kay fa taraa baladu naa noo gisee suñu dëkk bi mu ne baladu shirki wa tabarruj seet ñun ñëpp ñu tiit ñu ne sax mu ne baladu shirki wa tabarruj te juróomi fan la sax ñun ñëpp ñu tiit noo gisee réew mi mu ne réew bokkaale ak tambambalu est-ce que nit ñi bokkaale parce que waxuñu nit ñi dëkk waxuñu nit ñi dëgg foog nit ñi bokkaale kon sunu borom subhanahu wa taala mu ne wama allahu bi gaafilin amma taamaluun na ngeen bàyyi xel ne yàlla lépp lu ngeen di def yàlla subhanahu wa taala mi ngi ci mi ngi mi ngi ci teg gisam nekkul ku ko sàggane lépp lu ngeen def yàlla nee na sàggane wu ma ko wama allahu bi gaafilin yàlla nekkul ku sàggane amma taamaluun li ngeen di def yàgg naa leen wax ci tafsir yi benn borom xam-xam bu tudd Saïd Hawa rahimahullah nee na bu ngeen jàng aaya yi na ngeen bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee soo jàngee aaya bi jeexee yàlla ne la lépp lu ngeen di def sàgganewu ma ko kon yow li ngay def lan la war a nekk li ngay def maa ngi koy contrôler maa ngi koy gis ñu ngi koy enregistré ah kon yow lan soo déggee aaya bi wama allahu bi gaafilin amma taamaluun lépp lu ngeen di def yàlla nee na maa ngi koy enregistré nekkuma di ko sàggane ñu ngi koy bind ndax kiraaman kaati bi ne mu ngi ak yéen nga jàng aaya bi kon yow lu la war algaafil man laa yatafattanu li umurin li adami mubaalaati bihi lan mooy xafl mooy koo xam ne xeluwul ci yenn ci ay mbir lu tax ndax faalewu ko maanaam bàyyiwu ci xel daf muy yenn saa yi nga gis borom kër goo xam ne dafa sàggani këram nit ñi du ñu julli du ñu woor xale jigéen yi bon la ñuy sol ay góor di leen fekk si musique bi ci kër gi mais borom kër gi moom bon yoonam nekk ci yooyu loolu mooy xaflu loolu mooy càggante dëgg dëgg dëgg mooy ñàkk conscience waa safara bi ñu duggee safara bokk na ci li yàlla wax dama leen a may xel xalaatuñ ci ma dafa leen ay nopp dégg ñu ma dafa leen ay bët duñu gis lan la teg mu ne moo tax ma feesal leen safara ba mu fees del ñu ne yàlla subhanahu wa taala ñooñu lu tax nga yóbbu leen safara mu ne ulaayika humul ghafiluun ñooñu ñooy ñi sàggan dëgg-dëgg alxafla mooy ko amul conscience mooy koo xam ne yow dara doo ko yëg yàlla nag subhanahu wa taala nee na man melu ma noonu wama allahu bi gafilin amma taamaluun lépp lu ngeen di def rek man yàlla subhanahu wa taala maa maa ngi ci nekkuma ku ko bàyyi nekkuma ku ko sàggane mu ne tilka ñooñu ummatun xeet lañ woo xam ne xalaat passé nañ ñooñu ngeen di tiitaroo te ñu nekkoon seen i maam nekkoon ñu baax daan jaamu yàlla daan tabaxi jàkk daan woor daan joxe azaka daan aji màkka daan def lu baax tilka ñooñu ummatun xeet lañ woo xam ne xalaat paase nañ ñooñu paase nañ waaw lahaa ma kasabat ñooñu lépp lu ñu defoon ñoom ñoo ko moom yéen ñii wala kum ñeel na leen am ngeen ma kasabtum lépp lu ngeen def gis nga moo tax di tiitaroo ku baax amul njëriñ surtout nag koo xam ne yaa ak moom bokku leen génération moom jamonoom paase na yàgg na ay milliards yi at xammew ko sax mosu ko gis nga koy tiitaroo léegi li di garaaw Sénégal mooy jàpp ne am nañu ay kilifa yoo xam ne liggéeyal nañ ñu ba pare loolu ngay dégg du liggéey nañ ñu ba pare gis ngeen keroog dëj bi ñu demoon waa ji lan la wax Sénégal man liñ jàpp mooy fii kenn du fi dem safara ñëpp àjjana lañ dem dañuy dem loolu paa bi wax Sénégal moom ñëpp àjjana lañ jëm waaw waaw ndeysaan ñii kon ñii ñii borom mini yi ak borom dangal yi sax àjjana lañ jëm ah ak ñii ne fii di lii lii ñëpp àjjana lañ jëm ah kon ñi jaamu yàlla kon kay lii kon na ñëpp toog rek mel noonu loolu dafa loolu sax du maam du xel fii est-ce que ñëppay fayeeku salaire fi ñëppay fayeeku sénégalais dañuy dem banque fayeeku ah ku am carte d'identité rek da ngay fayeeku waaw na kenn repp leen di dem banque ne damay fayeeku yóbbu carte d'identité dig la jëm dig boo ñëwee nga ni la nga ni non man sénégalais la ñu ne waaw après nga ni weer dee na da ngeen may fay ma ni ku liggéeyul doo fayeeku yàlla dafa ne jaamu leen ku ma jaamu ma fay la ku ma jaamul du ma la fay léegi ñu ne ñu ne Sénégal kenn du fi dem safara ah ñun de loolu lañ bëgg ñëpp loolu lañ bëgg waaye nag nañ ko teg ci yoon yàlla nee na ñi ma jaamu ñoom ñoo dugg àjjana ñi ma jaamul duñ dugg àjjana àjjana kër la goo xam ne kër la bu yàlla dig ñi ko doon jaamu safara la kër la goo xam ne yàlla du ko dig ñi ko doon mooy kon li ñu war a soññ nit ñi mooy ne la jàmm leen yàlla mais di wax nit ñi ay wax yu neex yoo xam ne bëgg bañ ku la mere ñëpp Sénégal ndax ñiñ fi am mani la hawla wala quwwata illa billah ñun ñi ñu am am na ñu leen gën a fort fop te ñooñu seeni dëkk jàmm xewuñu xewu fi ñun ñi ñu am am na ñu leen gën a fort fop laa wax ma jaaraat ci baat bi pour ngeen dégg te ñooñu seeni dëkk yooyu jàmm xewu fi waaw ndax am na ci Sénégal ku gëm Imam Ali am na ku gën am na ci Sénégal ku gëm Al Hussein ñooyu ña nga Irak njabootu yonent bi génn wàll gépp ña nga Irak ñu suul leen te terewul Irak xam ngeen ne jaamu xew kon ay nit dañuy jaamu yàlla jëriñ daal fan la nekk mooy ci jaamu yàlla musiba fan la nekk mooy ci mooy yàlla di tiitaroo ay nit yàlla mu ngi nii wax nañu amul njëriñ bii mooy ñaareelu aaya bu ko yàlla répété ci suratul Baqara soo waxee mu ne tilka ummatun xal xalat laha ma kasabat ñooñu ngeen di tiitaroo passé nañ la ñu defoon ñoo ko moom yéen wala kum ma kasabtum te wala tusalunna amma kaanu yamalun ñoom lañ leen lañ doon def yéen duñu leen ko laaj yéen li ngeen doon def lañ leen di laaj ñoom lañ leen doon def lañ leen di laaj yaakaar naa ne lii ay aaya la yoo xam ne suñ ci bàyyi xel di ko jàng jàng dégg di ko jàng jàng bañ a farfarloo di ko dégg texte nii rek sans commentaire dañ ciy génn waaw lii suñu problème nag mooy dañuy dégg ba pare ah lii zaahir la rek ñi ñii zaahir la ñoom xamuñu baatin mbir mi zaahir la ak baatin ñii ñii moom waa ji waa ji dafa tàng xam nga tax mu tàng zaahir lay waxee zaahir ah gisoo sëriñ bi ñëw ci télé bi ne ñu ne ko waaye yow sa taalibe lu tax duñu muuru dañuy dangal di xeesal te te jullit dafa war a muuru mu ne muuru muuru yëfi baatin la baatin yëfi saayir la saayir ñun baatin bi lan yore baatin bi xam nga loolu kàccoore dëgg la kàccoore weesugul lool nga dajale ay jigéen ñu xeesal meesu def yaramu neen ah nga naan ñu ngi ci diine te yonent bi saa salaam nee na jigéen bu def bopp neen du dugg aljanna kaasiyaatu aariyaatun maailaat mumilaat mu ne ruusahunna misla aslimatul buxt mu ne laa yadxuluuna aljanna yamu ci de mu ne wala yazidna naima waxul sax duñ dugg mais duñu mos xéewalu aljanna duñ ko mos mu ne ngelaw li sax du leen upp yonente moo xadis bi mu ne jigéen ñi de bopp leen dugg aljanna léegi xoolal ñu fi waxuma la daanaka Sénégal ku deful bopp neen bokkoo boo muuroo sax yenn saa yow yaay am complexe yow yaay xat soo amee diine sax yow yaay xat kon aaya yu mel nii mbokk yi dinañu dimbali pour ñu mën a dund suñu diine bañ cee boole farfarloo jaamu yàlla kese kese kese xam ne moo ñuy jëriñ àdduna moom moo ñuy jëriñ àllaaxira yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori asalaamaaleykum